docteur Mamadou woon euh, ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di delloo nuyoo bi. accord euh, yow ngay sociologue euh, laaj bu njëkk bi tey ñu nemmeeku woon fii ci Sénégal ba ñuy installé li nga xam ne moo di suñuy député yi lundi bi ñu génn gis nañu scène de violence yi nga xam ne moom lañu fa nemmeeku woon ay micro yu ñu yàq yàqatee ay table ak ay yeneen xeex ba ci ay wax yu ñaaw tey jile loolu le yan conséquences la violence mun a yooyu lee mën na am ci askan wi rawatina ci ndaw ñi ndax ñenn ñi sax ñi ngi waxat léegi euh, bu ñu euh, blaameeti xale yi nga xam ne lépp lañuy ñuy caxat caxate ci école yi bu fin d'année jotee. waaw maa ngi maa ngi rafetlu sa question bi mais dama ko bëgg a wëlbati ndaxte euh, xam nga xam nga ne mm-hmm. ni. te man yaakaar am na ñoo xam ne ñoo ko tey. Ah, loolu rek lañ jàpp ci assemblée te assemblée bi du loolu lan moo indi loolu lu indi loolu mooy ñi nga xam ne ñoo te nguur gi dañ jalgati yoon mënoo mm. nekk député ministre voté waroon nañ bu yàgg teg seen gouvernement ah ba pare ñoom ñu démissionné ñu choisir mm. comme directeur de société président de l'assemblée boobu directeur de société la te démissionné wul mm. ah, ah. donc man topp ma ay affaire u seen seen charte yeeg yooyu lu ñu wax ak yooyu mais li nga xam ne nit ki xel bi mun na ko nangu man ci soo xoolee ci sociologie da ngay xool lu xel mu a nangu mm-hmm. xel mun lu muy nangu munoo nekk ministre nekk député dégg nga parce que député yi ñoo war a contrôler l'action gouvernementale mm-hmm. dañu dañu dañu dañu xaaj Euh, ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi di jël ay di di di yore gouvernement nekk ci gouvernement moom la ñu woowee exécutif ah waruñu jaxasoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di war a contrôler mm-hmm. su dee dëgg la ñuy waxante mm-hmm. dégg opposition bi xeex loolu euh, ñoom ñu taxaw foofu di saaga di kii yooyu ba pare na ñu taxaw këlee lu mu wax député boobu lu mu wax mm-hmm. bëgguma aw ci turam ah wax boobu wax amul benn maanaa mm-hmm. day politique. Mm-hmm. parce que affaire su amee da ngay am fit. yow yaa ngi fa toogoon dangay wax ni lii du benn dëkk ah assemblée ba nga xam ne suñ demee ba war a watee gendarmerie taxaw force armée taxaw kenn mësu ko fi gis. yooyu la ñu war a di dénoncer bale ñuy ñëw nag ki yeneen eh, la nga xam ne pour man loolu moo tax mu am. Mm-hmm. vote bi ñëw vote bi tam leerul. Mm-hmm. assemblée ba nga xam ne xam nga yàlla mooy wane yenn yi benn waay bu nekkul député dem ba jël parole nga xam ne ñii ñoom organisation bi zéro woon dégg nga nga ñëw dugg assemblée commencé guñ sax di woo député yi ngay commencé di joxe ay enveloppe nit ñi voté yooyu la ñu war a wax. ja la ñu war a wax parce que man lu ma amal solo lu ma amal solo Sénégal yu bari mooy démocratie bi sax suñuy voté mu aw ci yoon. muy vote bu am muy élection législative muy élection municipale muy présidentielle yëpp toujours day am problème tant que réglé wuñu loolu lu xew assemblée dana lu lu ko gën lu ko sax dana da yées dana fa xew mais nag aussi nit ki man damay wax man fu ma liggéey mooy gëstu li nga xam ne lu tax lu indi loolu mooy la ñuy wax analyse causale analyse causale da xam ne que tey doole yi ñoo am foofu dégg nga ñelee fexe indi seen ay pexe teg ah tey waroon nañu wax pexe bu li nga xam ne tey moo man suma nekkoon ki nga xam ne dafa war a kii man yooyu yëpp dama koy teg dégg nga mm-hmm. affaire Mimi Touré bi moo gën a nekk problème ah, nit ki ñëw taxaw nee leen man sama sama sama sama joxewuma sama nan la tudd euh, procuration voté lu ma ki nga xam ne moom la sama camp choisir moom la président de la république choisir voté wu ma ko après moi beneen député ki nga xam ne yore saak benn mbuus yore ay nuñ koy waxee ay ay ay procuration yooyu moo war a jeex ci dëkk bi bëgg ko votel encore ba ñuy def jànn dañuy jàll rek non non man man man loolaa bëggoon wax c'est-à-dire nit ki d'accord naa si suñuy wax ne saaga waru fa am ak yeneen yi waru fa am lu ñu war a njëkk xool lu tax lu indi loolu parce que nit ki nit ki tëbu rek saaga mm-hmm. lu ko amul fenn lu fa nga ko gisee mm-hmm. ci kon ah. daal li nu ci assemblée bi dama ne xuloo ak ŋaayoo mënul ñàkk ci assemblée comme xuloo ak ŋaayoo mënul ñàkk ci biir couple mm-hmm. ménage xuloog ma kii ñaaw mënul ci société bi mais xuloog ñaaw du lu ko indi lool la ñu war a xool lu indi askan nañu léeg dañu war a toog rek ki yore nguur daal lu ko neex mu def mm-hmm. ba pare yow nga toog rek ne waaw damay yaru loolu amul amul fenn fuñ ko kiyee amul fenn fuñ amul fenn fu mu am ci àdduna bi soo jiitee yàlla def nga jiit nga nekk jiit da ngay def lu am lu lu tegu ci yoon soo soo ko tegul ci yoon yàlla am ñu mu sàkk dañuy taxaw ne lii du yoon su dee am na nga xam ne nag ah, ñoom dañuy wax noppi ñi ñu wax nañu noppi député boobu lu muy wax di wax woy ay école tu bu kenn wax xale yooyu du wax kooku day politique te man yooyu vraiment ça m'intéresse pas am na lu ma xaaroon ci moom lu dul loolu. Mhm. voilà d'accord dañuy des assemblée nationale wax euh, député Goudomp Chérif Mohamed Diko mi nga xam ne ñu bëri ñu ngi ko doon ŋaññi di ko tooñ euh, ci physique am euh, rawatina bopp bi donte noonu la mel ñu bëri nee nañ moom dafa dafa afroi bopp bi wax isam ci remarque bi nga xam ne Madiambal Diagne. def na ko ci tenue traditionnel bi nga xam ne am na tam benn député bi nga xam ne moom euh, noonu la indee woon euh, ci assemblée nationale li ni mel nag euh, daal di soulevé coow moom nag lii la wax ci benn tweet mu ne wu wuñu risque yi nga xam ne li ni mel mën na ko indi ay disciple abbé Diamecouna Senghor ci hémicycle li ni mel nag patron journal quotidien moo ko xam xamle Euh, daal di euh, posté benn photomontage euh, ex leader MFDC ak député bi Alphonse mm. Mané Sambou bokk ci coalition Yewwi Askan Wi li ni mel nag ñu bëri jàpp ni nag mën na indi atteinte atteinte grave ci suñu unité nationale ñu bëri daal di réagir daal ci réseaux sociaux yi ndax jàpp nañ ni li ni mel nag mën na jur jéye fi ci Sénégal genre discrimination yi ak genre discours yi nii lu mu mën a jur ci suñu société <laughs> waaw mais euh, ci député gu domp bi moom lu mu def ci nga euh, nit lu mu def rek lu mu def rek euh, man dama koy bàyyeeg boppam mais su loon sama sago nit ki suy ñëw assemblée suy ñëw assemblée bi nga xam ne dafa ubbeeku même assemblée soo fay ñëw da nga war a am benn tenue ah da nga war a am benn melukaan ba nga xam ne dafa war a nekk say aada dëkk. man loolu laa gëm dama gëm révolution culturelle dégg moom laa gëm donc man bàyyi naa problème boobu nit ñi mun nañ ci réagir et cetera comme ne nga aussi comme noonu la mel je awma ci tellement problème euh, peut-être benn député la ak mais man comportement bu ñu war am parce que député euh, de dafa représenter peuple bi peuple bi c'est des valeurs suñu valeur lan la am na par exemple nu ñu war solo soloo am na nu ñu war solo soloo ci suñu aada yi am na nu ñu war a soloo te yaakaar naa ne de plus en plus sax dañu war a dem ci di exiger nit ni di sol comme suñu aada comme suñu aada maa ngi rendre hommage à Thomas Sankara ba mu demee ci révolution burkinabèse ba mu imposer ñu sol seen tenue boobu traditionnelle voilà mais maintenant pour fi ngay wax ni seen confrère boobu ah de confrère boobu c'est-à-dire wax ci da nga koy wax man seetlu naa ne les gens du sud suñu defee dara rek ah yaa dañ leen di attaquer surtout moom dafa am habitude di attaquer les gens du sud yooyu comme ni nga ko wax war nañ ko moytu man la bee jamono awma problème ak lu ko vestimentaire parce que lu ko vestimentaire c'est pas ça le fond du problème su ko neexee solu solu seen aada te député boobu dafa solu solu seen aada ci kasaay la nekk loolu mooy seen aada maa ngi koy rafetlu moom pourtant am na ay ministre la dañuy sol ay te tengaana mais est-ce que mos wax ne kooku euh, rebe non c'est-à-dire dañu war a kilifa foofu am na fen forte la da defar <laughs> soo mënul defar da ngay noppi mais mag ba nga xam ne nga nekk kilifa nu jox la pouvoir ngay émettre bi def journal soo gisee nu jox la ko parce que état bi mun na la ko nangu mën na ko euh, nangu suñu gisee li ngay wax li dafa nara ah tas réew tas askan indi nit ñu ci seen ay biir ah dégg nga xam ne suñu par exemple euh, unité dina maa la dara dëkk yëpp ay unité nation bi c'est fragile c'est fragile. Re relation entre l'État, la nation, c'est une relation qui a été forgée et nga xam ne ci am na marque de fabrique colonisation euh, dans une certaine mesure mais ñun ci suñu aada bopp war nañ fexe ba nga xam ne tey construire gën a consolider nation sénégalaise ñëpp yem communauté parce que loolu xamuñu loolu. xamuñu discrimination parce que yow ethnie bi nga bokk ou bien bële ethnie nga bokk ah, di waxtu ni nit pourquoi mais pourquoi mais moom du député ah, na téye boppam ah, su ko nattan moom ji nga député boobu lu mu def ñëpp loolu la ñu war a def dañu war a sol suñu yére cosaan yi loolu laa bëggoon wax mais tey su soloon costume c'est normal mm-hmm. te costume c'est occidental suñu solee chapeau c'est normal ji nga tant que defuñu révolution culturelle boobu duñu dem c'est-à-dire war a construire consolider suñu état mm-hmm. vi na suñu nation fii Sénégal après consolider li nga xam ne man yaakaar naa ne moo war a ñëw te dañu ñëw incha allah mooy les états africains unis c'est-à-dire nous reconstituer l'Afrique sur ay base yi nga xam ne dañuy am identité bàyyi nag di topp ay identité ñeneen ñi mm-hmm. donc kii nu mu attaqué nii dafa war noppi loolu laa amoon lu ma doon wax. d'accord euh, ñu jeexal rek ak euh, cas agression yi nga xam ne ñëwaat na ab waay bu toll ci 47 ans doon liggéey ay AIBD euh, démb bi muy lii ñibbisi Grand Yoff foofu lañ ko attaqué ay zéro heure ci pont de l'émergence bi ren dinañu ko nag li mu yoroon yëpp daal nañ ko nangu tey laaj bi sampu gouvernement bi nee na mi ngi def ay jéego ngir aar askan wi donte sax nit ñaa ngi woy di sensibiliser di sensibiliser itam. Euh, tey euh, ban lan moo war a nekk lan moo waral euh, agression yi di gën di wéy ak aussi naka lañ war a def pour saafaraal ko. waaw mais damay ñaanal rek kii génn àdduna vraiment di jaale seen peuple di jaale famille am yal na ko yàlla xare àjjana mais dinga question boobu yàgg nañ ko fi wax. insécurité bi su xoolee ren rek lay laaylo dafa euh, jéggi dayoo ah, xale yi jigéen yi ah, loolu dafa lay wone rek que sécurité nuñ koy manager nuñ koy yoree dafa dafa deme yoon am ñi nga xam ne am nañ sécurité bu doy mooy ñi nga xam ne am nañu alal mu nekk ci nguur am nañ sécurité bu doy c'est-à-dire sécurité bon am nañu ay kaaraange mais population bi nit ñi individu muy yow muy man amuñu sécurité bu doy te nu ngi nekk benn société ba nga xam ne ah, ah loolu la ñuy wax société inégalitaire sur le plan social bokkuñu même pour accéder ressources économiques ak ressources financières ñun ñëpp amuñu égalité de chance dafa am ñi nga xam ne am nañu ak ñi nga xam ne amuñu ah, état bi par exemple sur le plan social amul lu ñuy wax. Euh, politique bu lay mënee ci le le revenu minimum lu ñu wax revenu minimum d'existence doomu aadama su demee ba toll ci yenn toll yi muy xale muy mag am na la nga xam ne war nañ ko ko jagleel nga xam ne pour jàppale ko la pour au moins Euh, wàññi euh, nan la tudd lu ñuy wax inégalité yi ba pare permettre nga bañ a passer à l'acte nga xam ne bu nga ci rey nit ou bien dem sàcc ou def ay ëldëb ak yooyu parce que doomu aadama toll na fa nga xam ne suñ ko joxul su ko nation bi joxul état bi joxul euh, solidarité sociale bi joxu ko ko dana ko wuti feneen ñëpp xam nañ ne pont de l'émergence c'est dangereux mais doo fa gis alkaati doo fa gis force de sécurité est-ce que ñoom par exemple man gisuguma analyse bañ ne voilà insécurité bi fii la ëppee doole analyse cartographie fii la ëppee doole tant le pourcentage fii la ak yooyu bon ñaan par exemple le profil des agresseurs ak yooyu yëpp amul étude boobu mm-hmm. amul xëy na su amee man yëguma ko yëguma ko mm-hmm. te loolu foo bëggee di di di di di di jiite nit ñi da ngay planifier mm-hmm. da ngay xam da ngay maîtriser ay ay ay ay da ngay am ay données en en fonction nag données yooyu ci ngay def sa politique de sécurité sa politique de sécurité am na ay gox yi nga xam ne foofu vingt quatre heures sur vingt quatre dafa am foofu les forces de sécurité pour assurer ce que j'appelle la sécurité collective nga baal ma nag peut-être que sama wolof bi mhm. man Haalpulaar laa dama ci dugal euh, mot bari français mais kooku c'est le produit aussi de mon aliénation culturelle dama koy reconnaître jaajëf merci beaucoup euh, docteur Mamadou Wane merci merci di fàttali yow euh, sociologue nga